jot jot naa jotili leen ñu jokkoo jaxasoo ma di soo daasoo déglu daagu laxasoo li tax ma bëgg jàppal lundi acoustique la ñu teg ci ambiance 9h 11h lay am mardi talaataru maam Cheikh Ibrahima Fall mercredi c'est l'invité du jour par téléphone wala yu ni mel bu ci mën a doon rek ambiance assurée la tous les jeudis yéen ko doon laaj may pëtaxal saañi roof galeñ ba mu trop très bien tegaat lépp ci temps ak ci la waxal maam daan na 97.5 la le top de l'ambiance et de la classe di soo daa soo ngeen maam daan